un jour euh, maam Adam Mbodj diététicienne nutritionniste man maay ñëwaat tey ci émission jeunesse un sportif ñu euh, sur la 13 TV di leen accompagner ci mois de ramadan bi yëpp tey aussi dañuy waxtaanee euh, lu am solo mooy rupture bi sooy dog lan nga war a lekk lan lañ gën a recommander. xam nga yaa ngi woor toute la journée booy dog déjà xam nga ne sa suc gastrique yëpp a fermé da nga war a ubbi léegi leen di ubbee nag mooy da ngay naan lu tàng am na ñoo xam ne dañuy ñëw rek heure dog jot na rek nga daw ca ndox mu sedd ba parce que tàng na war a lii na da naan ndox mu tàng ndox mu tàng mi mooy kafe war a thé war a meew war a chocolat chaud boo ko naanee ba pare léegi nag léegi xam nga d'habitude comme de coutume dañuy jël tàndarma bi loolu lañ njëkk a tàmm loolu moom comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko digle mënuñ ci lu bari moom la ñuy njëkkee après na nga jël sa lu tàng boo jëlee sa lu tàng daal di jël tuuti céréale céréale bi mën ngaa dogee sa fonde tuuti benn verre mën ngaa dogee sa sobi bu tàng mais d'habitude nit ñi mburu lañ gën a taamu donc mën na nekk mburu mën na nekk euh, croissant mën na nekk pain de mi mën na nekk crêpe mais bul abusé parce que boo abusé ci loolu après doo reer donc da ngay ñam rek boo lekkee croissant tey bu subaa nga lekk beneen mais tey mënoo lekk beignet bi lekk croissant bi lekk lii laal fu ne laal charcuterie bi n'est-ce pas yooyu yëpp nga bëgg ko boole lekkandoo ko benn yoon mais xare xaaral ma xaar reer donc yooyu ngay lekk. façon agenda boo wooree nag sa xel day nekk ci lu ne mais mënoo ko lekkandoo bu teyee boo lekkee bi bu subaa ngi lekk beneen nga naan ndox mu bari parce que journée bi yëpp naanoo léegi nag boo paree nag nga dem julli ji xaar reer bi waaw loolu la leen indi woon tey euh, ci rubrique euh, jeunesse et sportif sur la 13TV n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne euh, bu leen fàtte mot d'ordre bi corona out toog leen seen kër. boo leen di génn ngeen soot seen masque ñu ngi leen di remercier ci li ngeen ñu seetaan leen jox rendez-vous à demain merci beaucoup et bonne rupture